Sénégal, bonjour. En Libération, le journal parle de fuite, de fuite dans les conduites de la Sahara, histoire de nous révéler que Ndeketeyo, Ndeketeyo, plusieurs maisons, plusieurs maisons contaminées à Anne. En tout cas, les hydrocarbures se sont mélangés aux eaux de pluie. Le préfet interdit les activités à risque, c'est-à-dire la mécanique, la tolérie et entre autres sur le site. Bon, les familles touchées, provisoirement logées au CEM de Anne, informent clairement et nettement Libération. Restons avec le journal qui parle d'affaissement de Dal à Kermassar et Yumble. Pourquoi faire Eh bien, pour nous renseigner qu'un bébé de 4 mois, eh bien, un bébé de 4 mois et un enfant de 8 ans tué. Aïe, aïe, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, les deux drames, eh bien, les deux drames portent à 6 le nombre d'affaissements de Dal enregistrés depuis mi-juillet. ay si libération ak Ben liir bu ñeenti weer naka noonu tout le temps ñetti at ñu ñàkk seeni bakkan ci dal yu daanu ci Kër Massar ak Yëmbal ca anit yéenekaay bi wax ci konditu saar bu fay balle essence ki pétrole yu ànd ak ndox ma njaboot yëmu ñëwal nañ leen dalal ca seem bu gox ba di an dal leen ak am ca kër Masar ak yëmbal yéena kaabine ay dal daanu nañ fa benn baa nga faat ab liir gu toll ci ñeenti weer ba ca des faat ab gune gu toll ci juróom-ñetti at libération ne am ñu ci jëlee gaañu-gaañu waaye ci fàttali yi mooy juróom-benneelu dal yi fi jota daanu lu ko dalee weeru juillet gi ñu weesu libération ne bu ci nguur gi jógul musiba mun naa am ndax taax yu bari seen tabax demeetul noonu ba tax na ña fa dëkk seen bakkan a ngi ci xottu gerte a nga ca libération beneen ndaw bu am juróom-ñetti at kenn ki Kër dëkk ka ca te dal moo daanu seen kaw ñu dee waa dal yi daanu moom kenn du ci wax libération ne en tout yi ñàkk seen bakkan li nag mooy yóbbu di dal yi daanu ci réew mi diggante wéerëb suleet ba sur jon tey ci juróom benn dal yi daanu